ومسكني سل من الفجار ومن bokki jullit yi taalibey murid yi ñi ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel euh, xanaa di fàttali suñu bopp di leen fàttali rek liggéey bu rëy bi nga xam ne mooy liggéeyu safinatul amaan te ko ci Seex Abdul Ahad Mbakke ni mu ko soññee woon ci dëkk bi rek te lépp di bëggu sëriñ Touba mu soññuñu ci fàttali ko jullit yépp muy li nga xam ne moom la xaadimu rasul sañcee woon dëkk bii di Touba te boole ko ak xasiida googu di xasiida Matlabul Fawzayni muy li nga xam ne moom la bëggoon Touba doxe ni képp ku fi nekk itam nga làmboo ak melo woowu loolu lañu ñu sëriñ Abdul Ahad doon jàngal di ñu ko fàttali di ñu ci soññ loolu nag ku ne xam na taxawaay bi mu ci amoon ak ñor gi mu ko ñoroon ba mbooleem ñi mu bokkaloon sëriñ Touba tañ nekk fi ci jamono jooja gis ngeen ko kenn ku ñe nekk ba mu ko bindee di ci waxagu nguur gi fi nekk siñaatiir ba nga ca def tàmbalee ko ci as Cheikh Abdul Xaadir sëriñ Saalih Mbakke sëriñ Sohaybu sëriñ Mouhamadul Mourtada ñoom ñëpp ku ci nekk def nga sa signature sëriñ bi door a yóbbu kayit woowee ci ñi fi nekkal nguur gi loolu nag kon ku ne xam na ne ñor na leen ndax mboolem ñi mu bokkal sëriñ Touba euh, mandargaal nañ seeni signature ci kayit woowu sëriñ Saalihu Mbàkke ñëw daal di nag taxawal mbooloo mii di Safinatul Amaan dénk leen liggéey bi sàmmale leen ko limaat yu bari yoo xam ne yii dolli nañ ko ci ndax jamono day dox te waxtu wu ne am yoo xam ne yii da ciy dabe jullit yëpp ubbil nañ leen ci bunt tàllal nañ leen ci suñuy loxo rawatina taalibe murit yi képp koo xam ne eh, am nga ci benn xalaat ci boo xam ne war nga ko cee mën a dolli wala loo mën a jëf ci loo xam ne dana gën a yaatal liggéey bi ndax li ci ëpp solo mooy buñ sañoon kenn ku nekk diisu dal ci sa kaw ci fitna dañ lay xamal boo xamul bu fekkee xamoon nga te fàtte ñu fàttali la boobu mooy bi ci ëpp solo kuñ gis nañ la xamal li nga xam ne lii moom mooy yoon mooy li ñuy tere te li ñuy tere kat génnul lu dul li lislaam tere rek mbirum sëriñ bi moom li lislaam digle lay digle li lislaam tere lay tere ku foofu nag la ñuy fàttali nit ñi ak di leen ci jàngal di ci woo ñëpp nag ndax kenn ku nekk am na lu la yàlla may loo xam ne mayu ko keneen te loolee nag bu dee loo xam ne lii luy jagal liggéey bi la ak foo mën a nekk ak loo ruqe ruqe xamal ne bàyyi nañ la ci xel ci waxtu wu nekk nga yëg ne liggéeyu sëriñ kenn moomu ko ñi ciy liggéey itam ñu leen di wax saa su nekk rek nañ jéem a jub te sellal te ànd akuk dal akuk teey ndax kuy yi nit moom da war a jub ba noppi. kon loolu itam ñi ngi koy soññe suñu bopp di ko soññe mboolem ñi ñu bokkal liggéey bi te it di leen xamal ne daal kenn ku ci nekk roq ba nga nekk war nga faa mën a nekk membre Safinatul Amaan même boo yorul carte sa poos itam am na taxawaay boobu war nga ko caa mën a taxawe ci la nga war a artu nga artu ko. bu la tëë nag nga yëgal ko ñiy saytu mbir moomu ñu taxawee ko ndax loolu it lu ci am solo la kon ñi ngi ciy gën a yaatal di ci woo mbooleem délégué de quartier yi chef de village yi ak autorités yi itam kenn ku ci ne la nga ci mën a jàppe lu mel ni ki gendarmerie ak police ne ci dëkk bi naka jekk ñoo seq liggéey bi ñi ngi ciy def seen kem kàttan waaye ñi ngi leen ciy gën a soññ ndax am na ci barab yoo xam ne nag euh, safinatul amaan rek dem fa du doy bu boobaa nag euh, ñu ànd caag ñoom da cay am solo lool kon ñi ngi ciy woo ñëpp daal bu ñu ci xalaatu kenn wala man-manu kenn itam lépp loo xam ne waaye mën na ko cee taxawee li ci ëpp solo du caageenu di joxe xaalis waaye li ci ëpp solo mooy xalaat yu baax ak itam lépp lu ci waaye mën a taxawee ca fa nga nekk nga xam ne loolu dana jàpp jàppandal liggéey bi loolu itam soxla nañ ko ci kon ñi ngi ci woo ñëpp daal ndax liggéey la boo xam ne kenn nit mënu ko ñaari nit mënu ko kon roq bu nekk ña fa nekk rek buñ fexe ba quartier bu nekk ci Touba nga kenn ku ci nekk nga seetal fa nga nekk. lu fa xew wala mu yëngu fa imaam ba fa nekk ak kilifa diine ga fa féete ak délégué de ba njëkk a jéem a lijjantil quartier ba ba noppi bu leen tëë nag ñu door a wootee loolu dana jàpp jàppandal liggéey bi dana ko woyofal ndax nun ñëpp ñoo bokk jublu bokk bëgg te mooy li sëriñ bi bëgg ñu bëggale ko ko ndax bu doon am ñaga tey damay wax ne kenn ku nekk koñ ba nga taxaw ci ñag bi sañ nga ne mankat kenn du ma fi romb di ñàggi ñag bi te mooy ñagub sëriñ Tuubaa bi kon bu kenn ku ne defee noonu rek ci murid yi li sëriñ bi bëgg daf koy daal di am kon ñi ngi sant ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan sëriñ bi tasale ñu ci ak ndimbalam ak tawféexam di ñaanal Seex moom mun Muntaxa suñu boroom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ Touba ñu ànd ak moom suñu borom defal ñu ci ndam ak tawféex bi barakati xaadimu rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa maskani وامن ملال بما عن جارين